mbokki internet yi daleen ak jàmm topp ka di ab groupe nag waaye moom mi ne jàppale ne daal jamono jile kaam la ñuy daal di toppatoo ba xam fan lay mbujj euh, ab groupe Facebook yi la nag topp ka nee tuuti kaayma di lu ñu dul sikki saaka fenn ak yeneen ñoom nag ci seen ndodd ay plainte yu bari moo ci daal di teg teg woon la ko war bokk na ci collecte illicite diffusion de données personnelles ak aussi ay euh, diffamation bu ñu tënkee mbir mi daal ci plainte yu ni mel euh, dafa am ay plaignante nag yi nga xam ne ñoom dañoo daal di déposer ay plainte ne ay victime nañ ci ay publication euh, seen i image yi nga xamante ni duñu ko yëkk wala sax du ànd ak seen i ndigal te nag image yooyu di seen i image ñuy publier ci Facebook dafay ànd ak ay propos maam kàddu yi nga xam ne tegewul ak dëgg Euh, yi ñuy def ci groupe yu ni mel di groupe Facebook yooyu ñuy duppee topp kaak yi ci aju euh, bu ñu sukkandiku ci sunu ngi nekk fële ci Libération nga xam ne ñoo ñu jox xibaar bi nag euh, ñoom dañuy xamal rek ne mbir mu ni mel. dafa tege woon ci loxoog ñi nga xamante ni ñoo di division spéciale de la cybercriminalité Euh, ci profilu umu xayri euh, ki ko moom nag di ndaw si li ñuy tuddee faatu Diop ñu gën koo xam ci turu Kiné Ana Diop moom nag moo créé sax d'ailleurs group bi la ñuy tuddee Néné Tuuti loolu nag nekk une évolution groupe bu euh, Top Cas nag sur les réseaux sociaux yi ci ay recherche nag mujjee nañu ko localiser fa la nga xam ne moo di ci HLM foofu sax la ko élément yi la daal di interpellé moom mi la nga xam ne sax dafa daal di dellusoon fi lay di Sénégal moom nag jamono jëlee mu ngi ci position garde à bi bu ñu sukkandikoo ci sunu euh, naataango yile pour association malfaiteur collecte illicite diffusion de données personnelles ak aussi lu jëm ci diffamation ba tey ci xibaar yi ñu jëlee ci sunu naataango nekk fule ci euh, libération ñi nga xam ne administration administratrice euh, bu groupe boobee di woy ci Roqaya Daba Tine moom tamit daal nañ koy interpellé lépp nag mu nga doore ca création groupe bi la ñuy tuppee duppee topp cas 221 dépense ba nga xamante Euh, ay soxna ñoo fa doon daje bokk na ci sax euh, ay mariage ay divorce ay voyage de célébrité euh, aussi ak yeneen yi nga xamante ni moom lañ ci daan traité maanaam moom lañ daan waxtaanee ci groupe benn mel membre yi nag dañ daan daal di reprendre sax ay euh, post ak publication ay euh, star euh, souvent ci compte yi nga xam ne nag buñ koy def ci anonymat lañ koy defee ñoom ñu ne nag bokk na ci lañ daan wax ñëwaat yu bëri ci ay événement di ko waxtaanee tabaski ak korite ay feetu Noël dina ay influenceur ca naka dañu amalee seen feet waaye aussi laka lañu ca def ak lañu ca wax ak yu ñu koy def ay cas ni nga xamante ni moom la ñu koy duppee ay membre nag daal dañu doon intéressé wu ci li nga xam ne moo di ay faits divers yu relaté nag lu jëm ci ay histoire yi nga xam ne dañ koy liir ci ay bërëb wala sax ñu koy dégg ci ay rajo yu ni mel page boobu nag dajaloon borom takko takko bokk na ci 32900 membre yi nga xam ne ñu ngi woon ca page boobee loolu waral sax ba nga xam ne am na ay membres ca groupe boobee ñoom daanuñu dàq benn yoon ca di ci publicité seen i marchandises yu ñu jaay ak lu ni mel seulement que nag ca groupe benn règle daal dafa tegoon moo moo fa tegee bu nga xamante ni kenn du ko jéggi muy que ne kenn du contredire wala kenn du weddi li nga xam ne moo di administrateur yu groupe boobee. sinon rek ku ko ci def rek yow mi ne jàppal ne eh, dañ lay génne ci groupe ba ca na mu gën a gaawee ndorteel ak weeru koor la membre yi décidé woon nag moo di suspendre groupe bi ni mel ci lu toll ci eh, fanweeri fan maanaam weeru lëmb ngir ñu mën a concentré bu baax ci li nga xamante ni moo di ca koor gi loole nag nekk lu nga xamante ni accepté woon nañ ko ba daal di tëj groupe bi ni mel kaay ma dee la lu ñu dul sikki sàkk boobu nag mooy groupe bi ñu duppee le groupe qui hante mois bi nag euh, écoulé donc amul benn signe bu nga xamante ni administrateur benn signe admin euh, pas de post pas de photo pas de publication euh, dara amul euh, ci ci weeru lëmb ñuy parle wax nag ci lu jëm ci détournement de fonds loole nag coow jib ca bu ñu sukkandikoo cax si admin yi nga xam ne dañ doon wax ab projet social ak ay membres yu bëree bari nag yu jublu woon ci mbirum ñu mel maanaam d'accord ca gannaaw bu ñu leen duppee wala sax bu ñu leen tegalee ci taabul ci li ñuy woowee ak projet social ñoom nag ñu ànd ca ba commencé ay contribution waaye nag malheureusement amuti benn action sociale bu nga xam ne ñoom ñi de cotisé woon seenu xaalis teg nañu ci gët groupe boobu daal koy amal membre yooyu nag yu groupe bi sax daal di am lu leen métti métti ba nga xamante ni muy membre yu groupe boobee daal di wute leen di kaay ma dee la lu ñu dul sikki saaka benn yoon ñu ngi ko créé nag juróomi weer a ngi nii ñu enregistré lu toll ci une semaine donc six mille cent membres amut benn célébrité bu nga xamante ne bàyyi nañ la tiktokers yi dañuy attaqué chaque jour seen passé di fouillé bu baax a baax di génnee la nga xamante ni moo di seen démb waaye souvent aussi euh, ay voisines ak ay anciennes camarades de classe ay cousines ak ay proches ñuy dévoiler seen i secret les plus profonds bàyyiwuñu dara lépp lu ñu xam ci yow rek mën nañ la ko ci teg ci table ji même les parents des célébrités aussi euh, bàyyiwuñu leen euh, benn yoon ay attaques yoo xam ne nag dafay ànd ak ay saaga ak ay expression yu doyo doy waar amul benn limite maanaam seen i poste daal lépp lu nga xamante ni mënees na ko teg ci taabu rek jotees nañu si rek nii xibaar ñoom ñu le daxuñu benn yoon teg ko ci taabu leen da amul dara lu nga xamante ni dañ la ko bàyyi. administratrice yi nag euh, di toll ci ñaari doomu aadama admin groupe bi nga xam ne nag moo di Kawos ak kile di Umu Xari waaye aussi. ñaar ñi nga xam ne ñoo di modératrice yi di di njaay ak Diop faatu Ba ñoom nag caché wala sax ñu làqatu ci ay li nga xam ne moo di ay faux nag ñoo doon validé ak joxe signal sax ngir ñu validé poste waaye aussi ñoo joxe signal ngir ñu attaqué euh, diw wala diw seeni tontu nag ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu dal seen kaw soo ko bëggee xam il faut nga dem fa li nga xam ne moo di ca Snap nga xam ne sax dañ fay daal di génne ay message yoo xam ne dañ koy codé ngir jéem a weddi li nga xam ne moom lañ leen di tuumaal groupe yu ni mel waaye wala sax ci Facebook wut ci nag beneen anam waaye aussi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañ koy amalee ci anam bi nga xam ne ñu leen euh, tegi tuuma ci lañ ko amalee maanaam ay saagaak ak ay menaces ak yu ni mel. lu ci mënta xew sunuy naataango yi nekk ci Libération daal bu ñu sukkandikoo ci seen i xibaar.